السلام عليكم ورحمة الله وبركاته di nuyu di leen ziyaara di leen balu di ñaan yàlla subhanahu wa taala bal di yëkkati kàddu xam naa jëme ko ci sunu kilifa sayidi wa mawlaaya cheikh Mouhamadul kàddu yi ñu yëkkati nag nekkul ne dañuy tontu Abdourahmane Sarr ndax moom jëraluñu toog lu tollookub seconde di wax ci moom ndax it ñun ëpp nañ loolu ëpp nañ di waxanteek moom waaye nag mën nañoo toog ay waxtu yu bari di wax ci sunuy jikko sunu kilifa ak li ko yàlla may Seydi Muhammadul Mustafa si nag dafa nekk ak may ak xéewal gu yàlla yéene waa Sénégal ña am sens nag daañu jëriñoo xéewal googu ñu ñàkk sens nag du ñu jariñoo xiiwal googu man mii di wax njaboot laa ci moom bokk naa ci ñi mu defar defal leen tarbiya defal leen lu bari te moo ne mosuñoo toog maag moom kon li nga xam ne yàlla may na ko muy defal nit ki ak tarbiya min waraaxil jidur man feñ xamna lolu man waye yaronte bi alayhi salatu wassalam dafa waxone ne inna li rabbikum fi ayami dahrikum nafahatun fata'arradu laha laalahu an yusibakum nafhatun minha fala tashqawna ba'daha abadan فيا فوز فيا فوز الذين نهدوا إليها وتعرضوا لها واستمدوا من تلك النفعة مددا dafa ne yàlla subhanahu wataala ci jamono dana yéene waa suuf ay may ak i xéewal ba wàccee leen nit yàlla bu baax nit yàlla bu yiw nitu yàlla bu bari may mu ne waaye kooku bu ñëwee na ngeen raxas seeni ndab te taataan ci liy ballee ci moom ndax xay na bu ngeen raxasee seeni ndab yi xool te sellal ko taataan lay jóge ci moom kon day man ngeen a am ci may yooyu waaye fala tashqawna baadaha abadan mu ne waaye bu leen texee di mukk waay ñaan naan leen rek bu leen texee di ndaxit nag léegi-léegi dara xew ki nga xane yàlla daf ko may ngeen bokk baay wala ngeen bokk sant wala ngeen moromandoo wala nga makka ba tax loolee mu yiir la digganteem ak moom ndax yooyu dafay yiir nit ki ci digganteem ak nit yàlla mu ne ko nag fa yaa fawsa na nahadu ilayha mu ne woonaa texe gaa yi nga xam raxas nañ seeni ndab ndabi xol taataan may yooyee jóge ci nit yàlla boobu te sëriñ Mustafaa ci ñooñu la bokk mu ne wa taaradu laha wastamadu min tilka ma madada ñi tàll tàll seen loxo tëbbu mu ne ñoom dey woonaat seenu texe euh, sëriñ Moustapha nag dafa nekk waliyu bu baax nekkit boroomi may nekkit boroom xam-xam boo xam ne boroom màndarga la alam la bu ñu Seydi Mouhamadou Moustapha si rek ñu xam kan la du laaj ñu naan ibnu Sey Cheikh Tidiane Seck yooyu yëpp déedéet waxa rek Seydi Mouhamadou Moustapha si bindal leetar def loolu te leetar ba mu dem bokkut ak ñi nga xam ne buñ leen tuddee buñ tuddul seen baay kenn du leen xam dafa bokk ci aarif billaahi yi nga xane ne euh, xam-xamu maarif bay ballee ci seen dënn kenn xamu nu mu toll dafa nekk itam aarif billaahi boo xam ne géeju xam-xamam euh, duus yaa ngay tàppe ak géej sekkereem mu bokkit ci nit yàlla yi nga xam ne dañoo nekk fóore li ñu dégg ëpp na ndax xam-xam bu delu ci diraaya ak xam-xam bu delu ci laduni da dañ ko jekku moom ci la bokk fa ka annaka al Furqanu, fi ijaasihi xaqan wa fi liidaahi lil furqaani fa ka ma xtalatat bi ruuxika kulliha ayaatuhu fadlan min arrahmaani am na ñoo xam ne yàlla moo leen def ñuy alquran ji dox sayidi musa si mii ci la bokk mooy boroom xam-xam bi nga xam ne foo ko fekk day taxqiq xam-xamam mooy ndoxum leer bi nga xam ne foo ko fekk mi ngi jañu mooy làmp këndiir bi nga xam ne foo ko fekk mi ngi leeral ñu ñëpp dañoo tànk ci mbàndi leeram ba lim ñu leeral lépp dégg nañ ko mooy su baaxul xaayaat moom bu fekkoon ne da doon jëkkante mën a jiitu na bu doon rawante raw na ndax moom kenn xottiwul pënd mooy soppe yonente bi alayhi salaatu wasalaam ndax bu toogee ci li nga xam ne mooy trône bi ci gàmm ba jàkkaarloog njaboot yonente bi ba yëkkatikat na yaa rasulallah xol yépp commencé naat yàlla bëgg yonente bi bëgg njabootu yàlla yi bëgg kooku mooy saydi Mouhamadou Moustapha Sy mooy xadimu xadarat xadaratil ahmadiyati atijaniya mooy liggéeyal حضر الشيخ رضي الله تعالى عنه ندخ جمعنا في جناو لي دي حضرة الجمعة بري ون اي تجاني جل ورد وعي جبونا ان حضرة الجمعة بكل تلاتي من تاريخ بي وعي سيد محمد مصطفى ستاقش اي جبوتم بني كما سيدي دف حضرة بدك يودم تيفق نغاية دف حضرة كفي دفات حضرة جمعنا بي جمكو رويات سيد محمد مصطفى gudi aji magu nek ñu commencé di sàqami ixfir li ummatihi warham bi ummatihi wastur laha wajburalha rabbi allahu tey jii am nañu daan bañ loolu tey ñoom ñëpp fekk si nañ ko ci rabbun tabaraka ji aw rabbun taqaddas yi kon nag tabarakallahu mu ne itam nitu yàlla boo xam ne euh, dafay tegtale yàlla ci secret ak ci lu nëbb kooku mooy mawlaaya sayidi muhammad mustafa si kon nag هو الولي الصالح أبو المواهب الإلهية العالم العلامة العارف بالله الذي جرت ينابيع المعارف من صدره البحر المطلات المتلاطم أمواج علمه وسره الحبر الفهامة العالم المحقق الماء المتدفق النور المتعلق السباق الغايات حبيب رسول الله صلى الله, رسول الله صلى الله عليه وسلم وقديم حضرة حضرة ال... آه، حضرة الأحمدية التجانية وخليفة مولانا أحمد التجاني المكتوم أبو المكارم القطبه الكبير العارف بالله والدال عليه في سره ونجوى سيدي ومولاي محمد مصطفى سي أحمد waaye nag léegi léegi nit ki bokk deret jooju ñu bokk tax ñu réere kan mooy Seydi Mouhamadou Moustapha Sy ndax loolu daa bokk ci yi yiir doomu aadama ba du xam nitu yàlla waaye bu la yàlla dénkee nag jegeñaale boo xam ne dafa soxar daf la bañ daf la bëgg yàqal loolu la araab bi wax ne al aqaaribu al aqaarib fi azaha fala tarkunan ila ammin wa xaalin fa kam ammin ataka alxammu minhu wa kam xaalin min alxayraati xaali waxkat bi dafa wax ne am na ay mbokk jegeñaale yoo xam ne seenu ay ak seen loraange ak seenu xol bu bon ñoo yées dangari jiit ñoo yées dangari jiit jiit menn mi nga xam kon nag bul jeng mukk jëm ci bay tax wala nga jëm ci nijaay bari na bay tax boo xam ne musiba mu la dal loxaam gennu ci waye bari na nijaay joo xam ne ëmbalu la dara ci jiw bu ko euh abdourahman sar bu jappé na bok gi bok ak serigne mustapha si maam cheikh lola taxna mu bëgg ko def morom man abdourahman jumna ndax xam nga garab man nga ca dem ci garab gi nga dag ci ñaari dekh indi ko ci kër gi waaye dëx ba yàlla sagal te yéene ko dañ koy teg ci diggante ba ci jullikaay ba bu ñu julli mu nekk ci kanamu nit ña baat ba mu dégg mooy laa ilaha illallah allahu akbar subhanallah alhamdulillah allahu akbar loolu la dëx boobu dégg waaye su fekkee ne te nga xam ne suma radadnaahu asfala saafiliin dox boobu dañ koy jàpp yóbbu ko ca sanguwaay ba bu ku bëgg a faj sa aajo foofee ngay ñëw ne fa capp faj sa aajo kooku dana gis musiba dana dégg musiba kon shattaana ma bayna yasidin wa yasid waaye nag euh, abdul aziz wala abdurahman yooyu yëpp jaaxaluñu ndax olaf moo léeboon ni sikkal ba ca jajj ak jagal ba ca njaañ sikkal ba ca ak jagal ba ca njaañ xam naa li may wax xamoo ko mooy bu waambul bañee walla mbay nangu yonente bi daa nekk ci mag waambul bañ waa madina nekk ñëwal di walla mbay ñëwal ñu aar la yiir la Seydi Mouhamadou Moustapha Sy nekk fii ci Sénégal gouvernement bi ak ña mu àndal naafiq yi boroom xam-xam yi jaay seen xam-xam borom expérience yi journaliste yi yëpp jaay seen xam-xam ak seen ngor dem àndandoo ak nit yi yu bari xeex di xeex kenn moo ne postat Sénégal gii ñu koy xeexe Abdou Rahman Sarr di doomu bàyyam bokk ci ñi nga xam ne moom mooy mooy eh, mooy mooy ki gën a di eh, gis nga gële mu yont yàlla saalix ga xara yoon muy qudar muy qudar alquran mi ngi koy wax mi ngi koy wax isin baasa isin baasa ashqaha isin baasa ashqaha ba ñu yó am na koo xam ne dangaa nekk ci xeet xamu sa bopp ba ñu ñàkk fayda ñoo lay fayee ñoo lay yónni di la def loo ay bitiis nga jëmale ko ci sa mbokk waaye yàllaa ngi dogal am na ku la gën téeméeri junni yoon ëpp la xam-xam ëpp la may dëkk ca Mauritanie bokk ci njabootu Sonqeet bokk ci njabootu euh, Mouhamad Hafiz as-Sonqeeti at-Tijaani Mouhamad Fa Hafiz as di àndaw Seydina Cheikh radiyallahu taala anhu ñoom dañoo taxaw ci kanamu Seydi Mouhamad Moustapha si wax ko lii wax ko lii نانكو صاد السرور على سنقيت فرتاحا وتالع السعد وتالع السعد في الآفاق قد لاحا والبشر قد غمر الأرجاء وامتلأت أيام الأسبوع أعيادا وأفراحا جسنا ليرن قتل سري مصطفى كما مكة قتل يرن تبني قتل البدر علينا والأرض تبو تبتسم والأرض تبسم بترحيب هاتفة والمسك والورد في جناتها فاها تفتق الزهر في البستان من فرح يهدي رياحين رمانا وتفاها كنا واستقبلت أرضنا من سنة خالفة بل قيس رشد من العرفان صحاها من الكمبة من فضيلة الشيخ وفا فاستنا به درب الطريقة تعليما وإضاها كان كوكو داين نسك نينكو مايكر من محمد المصطفى مرشد العلماء بالبينات تفاسيرا وشراها نكو يو سيدي محمد المصطفى يوم ميغا خامني داغي فك كي جانغ بوير الوم با نكا يافي راو nga dalal toog loowaat ko dalalaat ko jàngalaat ko kon nag yaa marhaban bi ka taaloo min damairina amaa nukkinu min a tabjili ifsaaha kooku loolu la ko wax waaye ba tey dama lay wax benn mbokk boo xam ne mi ngi fii dëkk senegal di njaboot ci Seydi Mouhamed Moustapha Sy gën la raw la ëpp la xam-xam dàllam sax la gën ñu koy wax sayid cheikh ahmad tijaani Diop di taalibe ci sayidi mouhamadou moustapha si yàlla may ko mu wax wax ju rëy jii ci moom kon waxum waxam muur na lépp loo mas a wax ak looy bëgg a wax ak luñ lay wax loo ak ña nga lay wax loo ñu dajale benn waxu sayid cheikh ahmad tijaani Diop bii muur na wax yooya dafa nekk أرى مصطفى يرقى إلى ربيع العلي بعلم وآداب وصالح أعمال دينيو دينيو سك يطالبه رقب الإله وراءه ولما يشق منه حبة ترحالي يا ما جس سيدي محمد مصطفى سي ما nga yéeg rek jëm ci boromam ànd ca xam-xam bu rafet جفم يباخي نقد فضن مقن لقد ورث المقدام عثا ورفعة من المصطفين الغر هم قير أبو تالي إنك كان كان من أبوه أبو أبيه والحاج مالك كذا القال والفوتي والبرزق العالي من تنجبيه donn baayam si Cheikh Ahmad Tidiane si donn maamam Serigne Babacar si donn maamaatam Alxaaji Malick si donn góor gi Alfahima yore wele donn Alxaaji Omar Foutiyu donn Seydi Mouhamadou Xaali donn Barzaqul Maktum te ñooñu kat xad iftaxaral amlaaku wal anbiyaau bihim kama iftaxaral mawla bi ijaadi zal ali laqad warisu nuura nabii muhammadin فداء لهم بالنفس والروح والمال فهم أنجم ظهر بهم يهتدي الورى إذا ما السلام الجهل أرقى بأزيالي تنيمكت لقد أوضح للناس كل مسالك إلى الله من بر وصالح أحمال بلا حب جاء واهتمام ورياسة عدا ترفهم عن أي ما سخرف baal yi ñooñu nag bi yàlla defee ñu làqu ñëw nga yow Seydi Mouhamadou Moustapha Sy jël seen ndono waaye ndono loolu day sàmm nga ko ba yàquwul fexe nga ba génération bi ñëw ñëpp baax bu lu woon ak yow génération boobu yëpp daañu bon wa baadahum yaa Moustapha sunta irsahum walaw la ka saaral jiilu min ak yali fa kam mawtinin qatum ta fihi mujahidan li inqati hadha al jil min tadis al zali motax bari na bir bo tek tank yow serigne mustafa fi ngay def jihad ngir lan qatli generation bi ñew ci zilzal ci ndeug sa rax yi nduri ci gañu gañu yak yak yak ndax kat li nga dajale ci jikko moo xëcc ci nit ñi ñu topp la wa fiika min al axlaaqi maa qad tajazabat ilayka al wara yabxuuna minka hudal wali ndax li ñu wut si yow njubu yàlla loolu rek moo moo leen indi moo taxit xala dajale nga jikko yi ndax jikko yonente bi alayhi salaatu wasalaam nga ràngoo ndax kat bi ma rahmatin min rabbina linta lil wara walaw kunta fazzan laa yutiicuka amsaali mu ne ko gis nga yow sëriñ Moustapha yërmande bi yàlla def ci yow moo tax nga nooy ci mbindeefi yàlla yi bu fekkoon ne ku jàgg nga boroom xol bu tàng nga ne abdu si kon ñu mel na ñun duñ la topp waaye yàlla dogal nga mel na yonent bi ci jikko ndax yàlla def ko waxoon ne ko fa bima rahmati min allahi linta lahum walaw kunta fazan xalisal lan faddu min hawlik moom it mu nekk bi ma rahmatin min rabbina linta lil wara walaw kunta fazdan la yutiyoka am sali kon nag fa dairatul mustarshidin ja'altaha ka fulkin ila shati al mafasiti rahali yaa jël dairatul mustarshidin def ko muy gaal goo xam ne mooy fas yéene féey ndax kat tama tama wajal baxru baxru zambiya siqati وإنني رب قفت الغرق يا الله وما السفينة ترجى خير رحمتك العثمى العميمة كل الخلق يا الله لولا ما ودون جوي سري مصطفى نيكو قال قانيني موي دائرة المستشدين موام غي يك كبير يك جتفس دي ndax fekkente ne tuufaanu noox ndox la woon tuufaan bi amat bakkaar la ku amul kilifa lab ci sëriñ Moustapha taxawal gaalu non la yonte yàlla nox defoon motax li sayyid Cheikh Ahmad Tidiane Diop wax mom la ko mbok murtani bi wax dafa nako safinatul haqq yabni ja'ilan dusuran min al hadith wa bilqurani alwaaha mu nekk gis nga deug bu doon gaala yow suri ma safas yaa ko yett ëlluwaya manam place place manam maanaam dénk yi ñu defare gaal gi القران لا بونتي كداك موي سنة يونتي بي عليه الصلاه والسلام من نك كابتن بي موي يسري مصطفى وقد قادها وقادها ينصر الاسلام في امم شتى وهذب عبادا وصلاها موتاخيت تير مصطفى نك كابتن بي دي دوال غالغي دي سار الاسلام دوجل سي بير غالغي تكلور اك سرير فلت نار ا أه ا أه ا أه ولا فق Euh, euh, mandunkeeg sondunkeeg ñépp ngi ci biir mu ne itam nga fexe ba ñi dugg ci gal gi ñëpp ñenn ñi nga def leen ay jaamu yàlla yoo xam ne kenn xamul fu ñu toll ci jaamu yàlla ñenn ñi nga defa leen def leen ay nit yàlla yoo xam ne kenn xamul nu ñu toll ci nit yàlla mu ne ko moo tax buñ la gisee rek sunu xel dem ci Seydi Cheikh Ahmad Tidiane Sy inaa nara fiika shaxsa sayqi walidakum ramsu tawassuli faddaahan wa waddaaha bët bi ñu lay xoolee mooy bët bi ñu xool Sayid Cheikh Ahmad Tidiane Sy Al Maktoum ndax bu ñu la gisee rek moom la ñu gis kon nag Abdou Sy jot na nag nga ñëw ànd ak sayyid mohammed mustafa si mu defal tarbiya mo gën ci yow li ngay def wa salaamu alaykum wa rahmatullah